leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo sans limite TV ñamaat mbégte contentement teewaat fii tey fas yéene waxtaane actualité waxtaane li nga xam ne moom moo xew ci réew mi ak bitim réew wala rek mu ñeel doomu réew mi ak foo mënti nekk ci àdduna sans limite dina fa daal di doxantu waxtaan ak yow xool naka nga toogee waxtaan ak yow itam ci xew-xewu jamono ak actualité tey nag ñu daal di fa yéene amal waxtaan ki nga xam ne moom moo di honorable député Coura nationale wante jamono ji ñuy wax ak mu ngi fële nag ci Amérique donte gis nañu démb partout ñuy daal di publier ay vidéo nga xam ne daf ci amoon problème ak benn parti moom ku xamaki nag moom lañu dalal tey ci Sans Limites TV fa yéene waxtaan ak moom donte nekku fi want dinañu am ak moom waxtaan moom solo ma koy nuyu nag di ko ziyaar di ko bàyyi ak mu nuyoog internetu Sans limit TV. ah Sans Limites maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen ñaanal yàlla. moom mi nga xamante ne nii mooy def ci xelu doomu aadama dëggu mhm. yal na leen dal ndax daf ma dal mhm. euh, di nuyu sénégalais yépp nag mhm. di leen jox seen cër ak sama love euh, di nuyu njiitu réew mi président Macky Sall. ci teeru biñ ko teeru démb lay wax ba pare. cinquante deux états yëpp mhm. militants yi fa nekk ak militantes yëpp ñëw nanu di mhm. sargal si président Macky Sall mhm. problème bi nag euh, ni mu demee mooy man dama jóge aéroport JFK d'accord ma jël sama taxi wàcc ci kër gi nga xamante ne ni maa ko moom mooy sénégalais yi ñoo ko jënd ñu moom ko ma mhm. wàcc fa mhm. di jéggi tali bi mhm. lu mat juróom fukki góor wala juróom benn fukki góor wër ma d'accord di ma sotti ndox ne Coura Macky ngi nii jotuñu Macky sàll mu ngi nii jàpp leen ko ñu may sotti ndox d'accord may xamal ni sénégalais yi dara jotuma kenn teguma ci baaraam baaraam d'accord ndox lañ ma doon sotti di def seen incorrect boobu africain mhm. africaine mhm. ñu ànd ak ay jigéen ñi nga xamante ne dañu ñëw Amérique di jaay seen bopp ñu ànd ak jigéen ñu doy di yàgg fi amuñu këyit mhm. ñu ànd fekk ñoo xam ne seen ndey yi liggéeyuñu seen kër bàyyi ndax danoo dox ñun dañu dugg jaar ci voie normale yi Sénégal nag victimisé wu bii nu nekkee ni opposition bi ci waa kër Sonko yi lay wax. d'accord. loolu la bëggoon man ma def ko man duma victimisé wu. Mhm. damay xare ak ñoom. dañu daw. Mhm. Pastef dañu daw. mais honorable bëggoon dama leen doon dóor ñuy daw lan nga lan ak ñoom parce que nit ku wàcc ci otoom. di dugg ci biir këram lan mooy problème bi exactement dafa fekkoon nga teeru ji. monsieur le président jotewuma ak ñoom dara. Mhm. xamuma leen. Mhm. xamuñu ma nee naa la dama wàcc ci taxi bi di jéggi tali bi ñu wër ma. ok. Mhm. understand ma sax lan moo xew. Mm, mais dañu yaakaaroon ni kuréel mag yi Mhm. day daawoo mhm. barki salaatul faatiya bu gaynde taxawoon sama kanam sax duma duma buuse meetar mhm. man awma fit man dama ñeme loolu laa bëgg sénégalais yi ak Pastef ñu def ko seen bopp man awma fit man dama ñeme man duma ragal li tax nag ñu bàyyi ñépp cuus ma man xam naa lu tax lan moo waral loolu. ndax li waral loolu mooy sama sama sama yëg-yëg ci sama réew. sama dëggu. Mhm. sama fidèle ci président Macky Sall. Mhm. te sama fidèle boobu du ma sa denc moom. Mhm. su fekkee ni fu ma dem ñu kar karma nañu pare. ndax maa ngi bëgg a yàgg ci parti bi depuis deux mille quinze. mais man maay ki déranger Pastef mais dinaa leen waxaat ñaari baat maa leen déranger man lañ bëgg mhm. waa Pastef mhm. ñi ma doon sotti ndox démb man samay fans lañu di fansu Macky Sall ah bon barki alxuraanul karim ndax ñi ngi may sotti ndox naan ma ñoo la bëgg <laughs> dañ la doon sotti ndox di la wax ne yow lañ bëgg naan ma yow lañu bëgg d'accord ñàkk jëm lañ doon def ak ñàkk lu ñu def ak jotuñu Macky Sall seen xol di naqari gisuñu ko be gisuñu ko. da nga yaakaar ne ñoom Macky Sall la président la ñu bëggoon a def loolu gis la yow def la ko wala lan la. président lañ ko bëggoon a def. d'accord. léegi jotuñu président Macky Sall man lañ doon man lañu man lañu jot. d'accord waaye xam nga lan la. Mhm. sans limite. Mhm. ak Sénégal. Mhm. ndekete boo yéene doomu aadama yéene ko lu baax. mbaa xam nga ni ndox moomu ñu ma sotti may nañ ma ci dix mille dollars. may nañ la ci dix mille dollars. salaatul faatiha. ci ndox moomu rek ñu la sotti. ku sénégalais pur sénégalais pur et dur ma woo ma. Mm-hmm. sa taxawaay ñëpp a ko gis Sénégal umilier bii ñu la doon bëgg a mm-hmm. may naa la dix mille te fii la dëkk Amérique. ndeysaan. Mm-hmm. américain la ni ma may naa la dix mille dollars yow Coura Macky. Mhm. ndax nii ñu la naroon a toro xale yi mhm. mais man sama yaay dafa liggéey ba pare sama yaay daf ma ñaanal mhm. dama wax sénégalais yi ñu moytu ma dama sonal sama waajur wi dama ko ñafe <laughs> tedd rek laay def ba may dugg suuf munuñ ci man dara munuñ ci man dara lu ñu jéem ci man dañuy daanu xoola nga jël nit sotti ko ay ndox ba mu tooy ñu may ko ñaar ñu may ko ñu may ko juróomi million fii ci Amérique fii sénégalais américain. mu nekk cinq millions CFA. cinq millions CFA. ci ndox muñ ma sotti xanaa kon man dañ maa man dañ maa war a bàyyi sénégalais te xam ni man suufu Sénégal bi lëg daawur mbay moo ma bëgg. Mhm. Mhm. aw dara lu may gëstu Sénégal lu ma lu ma am ci lu baax Amérique man maay seen jigéen. Mhm. buy politique. bu nekk Amérique buy sonn di ko indil Sénégal di ko fayee sama xaalisu bopp six thousand dollars muy muy trois millions maa koy fay saa yu may def sama conteneur ñëw di ko jox daara yi di ko jox sama mbokku jigéen ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. man topp ma Macky Sall di wax rek de dama am jaab. d'accord. Mm-hmm. man dama am liggéey mhm. man yàlla daf ma teral mhm. dama jëndal sama yaay kër yóbbu ko Màkka mhm. avant may xam président Macky mille 2015 laa dugg ci politique 99 laa yóbbu sama yaay Màkka d'accord ñi may wax ak may déglu Sénégal ñi ma xam dañuy forex waa kër Sonko yi ñu gis ni eh, doon nga fayu ndax yaa ngi doon dóoranteeg ñoom ba jël sa saak am koo ko dóor fayu boobu lan la woon da nga meroon ak euh, en ce moment wala lan la woon exactement dama gis ay góor songu ma mhm. te mu wóor ma ni sama fit rek moo fa des xam naa ni moom mhm. <laughs> dañuy daw man xam naa sénégalais yi dañuy daw ak man mhm. góor gu ci wóolu sa fit ba jàkkaarloo man mais benn góor rek munoon na jàkkaarloo ma su nga jox ma dinaa yànq mais lu ma sant góor wër benn te gis nga ni ma tuutee yow <laughs> waaw góor ñoo ñëpp wër ma may baaje ci seen biir di baaje mm-hmm. dañu bëggoon buzz amuñu buzz man la ñu jox buzz bi maa xew ci New York bi. <laughs> waaw man su ma su ma génnee dëkk bi lan xew après loolu. Euh, li xew mooy. Mm-hmm. nit ñi téye nañ ma. Mm-hmm. police yi ñëw nañu wax ak man. nee nañ ma naa porte plainte. ndax yoru vidéo yi ñoom ñoo ko dugal naa porte plainte. d'accord. te Fatima dama bëgg a wax sénégalais yi dara. ñi dëkk Amérique xam nañ li ma wax ñi dëkk ak man xam nañ li may wax ni mhm. dëgg laay wax ku ma mës a tooñ seen Amérique tëj naa tëj naa sa maam. li may wax ñëpp a ngi koy dégg. Mhm. ku ma mës dugg sama garde Amérique tëj naa la dama gudd lonk. Mhm. te fii kenn du fi tooñ te damay jëri proof. du ku nekk ngay tooñ. dëgg la. waxuma ak leen. Mhm. ñu jaar Guatemala mhm. torox seen ndey yi liggéeyu ñu mhm. jaayi jën torox jox leen ko ñu war a ñëw fii tekki ñuy dugg ci yoo xam ni nee naa la ñu bari dinañ ñëw Sénégal ci jamono yi ñu toll te man kuréemaa koy def xam naa américain yi xam naa système bi ñi la ndox da yàpp da nga jàpp ni après dinañ leen rëfu la dinañ leen delloo si si réew mi mais du yor naa vidéo yi du man kura mën naa jël avocat. Mhm. du xam naa système mu américain. Mhm. dëkk naa fi almost thirty years mhm. léegi ma am ko. da kenn par kenn lay jël man duma consul ndaw mi ñuy dugg ci consulam di ko yàq. ñi ma gis seen ñi ma jot ci vidéo bi seeni kanam yëpp. man dinaa jëflanteeg ñoom fii ci Amérique te Dakar laay toog fay sama avocat mu jëflanteeg ñoom. ku ci sa ndey na mën a la xaar. <laughs> ku ci sa ndey na mën a la xaar damaa gudd lonk yàgg naa leen ko wax waa Pastef ñu mer. Mhm. dama gudd lonk. Mhm. <laughs> dama mën sama bés. Mhm. sant ma ku ma xeexal dama mën sama xeex. te damay gañe. su ma xeexee damay gañe man. maa leen mën. dañu daan tàmm di gis ci sa ay vidéo ci digg Amérique 2005. d'accord. dañu daan tàmm di gis say vidéo nga naan yow benn góor du la toroxal du la humilier ku la war a humilier wala toroxal da ngay blow xeeram ak sa ogon démb daf la sori woon wala da ko bàyyi depuis nga dugg ensemble déggatuñ nga wax ci wax boobu dañ la ko tere wala lan mooy problème bi non du loolu xam nga su waaw Moussa woote na mu ne bu kenn ñëwagul léegi nañ ko xaar mhm. baax na second avril dañ ko tëj third good ah, li tax ma ne. Mhm. góor di ma humilier woon naa ko sénégalais yi démb. mënoon mhm. naa taxaw. Mhm. ñu may dóor. ma daw ndax ñi taxawoon wër ma ëpp nañu soixante. dama leen dóor ba ñuy daw. vidéo yaa ngi nii ñu koy seetaan. góor du ma humilier. góor a ni daw. dañu daw ñëpp a koy gis dañu daw. ndax gis nañ ku ma dóor ma daanu. Mhm. wala ku ma dóor ma ma tarxis ma ma ma tartari. Mhm. dañu daw dañu daw Pastef góor ñi dañu daw. Mhm. kenn du ma humilier man te goon may xamal sénégalais yi ne goon. du foo jëm yóbbu ko. pistolet. du foo jëm yóbbu ko démb mer gi ma mer. su ma yoroon sama pistolet bi heure bi leneen lañuy wax. moo tax pistolet bu ñu la ko joxee mhm. waroo di ko doxee mhm. te fii ma ñëw ne Amérique mhm. xalaatuma woon ci sama àddina ka ni sénégalais yi jógee Sénégal xamaguñu système mu Sénégal dinañu songu jigéen fii nii ci biir Amérique mais du sama goon bi su ma ko yoroon tamit maara day taali heure bii leneen la nit ñi di wax te bugguma loolu bugguma rey nit mais daw nañu man maa leen humilier dañu daw. sa photo sa photo ak ak yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi ko capturer di ko partager si réseau yi ak sa video yi lan nga ci fas yéenee def. Euh, dama ci kontaan. Mhm. ndax day tax doomu aadama yi gën a xam. Mhm. ni ñi ma singalee ak ni ma amee volonté. Mhm. ci Sénégal. Mhm. ak ni ñu ma singalee nañu ko tas nee naa la sama mbégte la. Mhm. xoolal noon bu yaboo bañ a kekku sama mbégte la. Mhm. fii may wax ak yow bu ma sañoon bu ma demaatoon léegi ñu dóor ma. ndax ndax ndax ndax soppe jóg. barki rasulilaay bu ma sañoon. su ma yeggee léegi. ñu dóor ma ba damm ma. liñ doon def xamuñu ko sax sama sama sama bonheur ba may ñëw fii. Mhm. xalaatuma woon benn doomu aadama yëkkati dix mille dollars di ko teg ci sama loxo bi. wante liñ la liñ la sotti ndox liñ la dóor dafa daf la amal avantage yow daal démb ak tey. oh yaa maa ngi béggee fu mu nekk nii léegi laa naan ki ma bokkal sàmbur ni naan ko waa man te maa dem ñu dóor ma ba damm ma. aywa. <laughs> Mhm. fas borom tànk ginnaaw yi. Mhm. courant ngi béggee. Mm-hmm. sama noon yi maa ngi bëggee mm-hmm. laaluñu ma teguñu ma loxo ndox lañ ma sotti bu kenn kekkoo mm-hmm. man maa doon dóoree ñoom dóoruñu ma vidéo yi war na wane ni Coura Macky moo doon dóore ñuy daw kenn dóoru ma d'accord waaw dañu bëggoon buzz nag ni toj nañu foofu dóor nañu Coura Macky pour am buzz kenn dóoru ma teguñu ma sax baaraam dañu leen dañu leen yabal wala coup bu ñu préparé woon la ñoom xale yooyu mais mais mais Tunkara. Mm. xam nga Tunkara. Mm-hmm. jabar ji. Mm-hmm. mooy affaire bi. d'accord. Awa mm-hmm. moom mooy jabaru sàcc yi. Awa ak jëkkëram ñooy yabal. ñii ne leen bu kuram ak ñëwee songu leen ko mais awandaw dama ko gën demin. ndax man diplomate laa. Mm-hmm. maa ngi tekki ca réew ma bokk naa ci histoire Sénégal mm-hmm. jëkkëram ci histoire sàcc lañ ko boole mm-hmm. ay doomam bu nu fi màggee sama doomu americain yi ne leen seen papa sàcc la woon seen yaay cagalawoon da nga jàpp ne lii nii yëpp moo doon gën a ak soxnaam ñoo yebal ñii loolu nga jàpp waaw waaw wax nañ ma ko dem démb ci guddi ah ni ma ah, ah, ah, ñoom ñoo yebal xale yi ne leen bu kur ñëwee songu leen ko waaye songu nañ daanaan <laughs> nee naa la aw fit dama ñeme. Mhm. aw ma fit ku am fit da ragal. Mhm. des nga tiit. Mhm. wala say mbokk wax la sa fit wàññeeku. man aw ma fit man dama ñeme. d'accord. lii moo am. may xamal Sénégalais yëpp man maa waxee ne Tunkara la ak soxnaam Awa Ndaw yan lan nga bëgg jël ci ñoom ñaar da nga da leen di boole ci plant bi wala est am nga preuve yoo leen ci boolewee ñoom ñaar. mais seetaanal ci kanam di ngeen ko am. bu ñu demee ci kanam. Mhm. Tunkara tey du Tunkara tey tey tey dama koy interdit foofu mu taxaw. foofu mhm. du fa taxaw tey. maa ngi def tubéy bu ñuul bu rafet def veste bu rafet. te da ngay delluwaat tey def takk verre yu rafet. te xam nga sa yaay dafa jongoma. da mhm. waaw tey dama koy interdit taxaw foofu di ngeen dégg tey ni Coura Macky. dem na kaso ndax am na ku mu gaañ. muy Tunkara na pare. tey da ngay delluwaat te da ngay tere a taxaw foofu noonu. ay yow boo gisee sax ni ma solo nga xam ne damay xeexi man rek man kura. Mhm. ñemewuñu ma. Mhm. Pastef ñemewuñu ma ndax kenn du ñëw Pastef ñemewuñu ma. danu ma ragal tamit euh, nekkul li nga euh, jàpp seen njiit di ko wax yenn yi ak contre bi nga ko contre ak élection yi muy waaj jot est-ce que nekkul loolu tamit moom moom merloo xale mais Ousmane Sonko ko la dafa dem kër caga yi di fay xaalis fukki junni pour daanu caga la góoru caga la nañu ko tëj ba damm caabi ji bu dee nu suul ko sama yaay ak sama papa yëpp ñu ngi fay ci ci armeer yi et maa ngi dundu Mm-hmm. keneen ak keneen a ngi dund mm-hmm. ñi fi dee bari nañ Sonko bu dee tey bu subaa ma paadi damay woote paadi bu Sonko faatu nii dangay woote danga koy damay woote paadi d'accord parce que daf ñu teg fitna mm-hmm. dafa lakkal sénégalais yi daf ñu sonal du nitu dara ñi mu àndal ay bandi lañu ay wuyu lañu ku sopp Sonko banni nga wuyu nga kàccoor nga mhm. caga nga bëggoo réew mi doo nitu dara mhm. maa ngi seen kaw duma leen may ñaari salaamaaleykum tey laay gën a wax Sonko mi njomb kam mhm. tey laa ko koy gën a wax te li ma koy wax dëgg la caga la dafa demoon kër ndey xadi mu ubbi kër caga mu fay fukki junni pour ñu daaneel ko ay xale du fi doon président tey du ko doon nanu ko tëj ba damm caabi ji mhm. su grève des faim bu dee ma lang tànn béer woo bàyyi dem ba ndiir mu tëggal ma ko ñu def bu yàkka bu yàkka barke alxuraanu karam nañu dee Sonko ko yu ma xëyee di ko wax lu ñaaw ennemi Sénégal la du nitu dara yàlla bëgg ko yonent bu bëgg ko Sénégal ku ko fitnaal yàlla nga dee mhm. ku fitnaal sénégalais yi yàlla nga torox mm-hmm. yal na la yàlla toroxal comme ni mu toroxalee Ousmane Sonko nii ak ñoom Tunkara d'accord est-ce que nekk dara est-ce que démb euh, kenn ci autorité yi nekk ci état bi woo nañu la pour massawu la wala le président Macky Sall wala soxna mais xanaa gisoo article yi ñu ma bindal mm-hmm. gis nañ ko état bi mm-hmm. damay kenn ci ñoom nee leen muy pouvoir di opposition ku ma ci laal defal ndànk parce que sénégalais yi ñoo ma bëgg mhm. sénégalais yi mhm. ñoom ñoo ma bëggal seen bopp man kura mhm. xolal bëgguma ñëpp bëgg ma nag xaw ma lu ma koy doyale sama sëriñ ba waxoon sëñ sëñ sa jaar waaye dama ni sénégalais yi genn wàll gi yëpp ma bëgg ku ma ci bañ danga ma bëgg ba bañ ma maa bindoo noonu yàlla moo ma defal loolu fu ma dem ñu bëgg ma fu ma dem ñu bëgg ma barke alxuraanul karim dañuy soob waa Pastef woo nañ ma. woo nañ la yow. am na ñu nekk Pastef ci leader yi woo nañ ma ni ma ndax ça va ma ni leen ça va ñu ma yow la dal ci ci ci leaderu Pastef bi affaire yi amee lañ la woo di la laaj ndax ça démb démb la. Mm. barke alxuraanul karim di ma laaj ndax ça va ma ni leen dara daluma ñu ne yow bu yow moom bëgguñu dara di la dal ndax yow dañ lay bëggee. lu tax lan lan moo tax ñu def la lii ma ni leen seeni façon sénégalais <laughs> waaye yàlla defal na ma teraanga mhm. ndax man bu ma sañoon tey ñu dóoraat ma mhm. ndax benn soppeey sénégalais mhm. bu ko yàlla teral ci réew mi bu mën a def lu baax ci guddi gi la ma indil dix mille dollars ni ma man maa la ko may da sonn kura lii ñu la def nii. Mhm. ma ne ko yow man ci def laa dëkk di man dañ may def rek may mhm. defee rek. moo tax nga <laughs> def tey say yu noir laal sa kos def tout noir ba mu ba mu jonga ma noonu fas ne delluwaat tey ca ca ca son excellence ci mbiram ya mais tey tey tey tey tey laa gën a defar sama mag jànga taxaw ne ñum président Macky Sall. Mhm. sama mag jànga taxaw ne ñum marem def dégg ñu doxal. mu yuuxu. sénégalais yëpp ñi bëgg Sénégal yëpp ñëw teeru Macky Sall di ko jaraa bootal mhm. ñoom mhm. ñu taxaw def seen ay écran écran mhm. di wone ay ñaawteefu Sénégal te Amérique nekk dëkk bu nëpp Amérique li fi am yàlla bu mu am sunu dëkk ba ci ñaawteef li ñuy won américain yi yëngaluñu mm-hmm. we live in US mm-hmm. is the nasty country mm-hmm. I ever see in my life li ñu fii def ci lu ñaaw yàlla bu ko sénégalais yi dund ñu ne seen ñu ne américain yi senegal baaxul sénégalais bon ño ma ne ma naa américain yi boo leen ma xoolee xool ñuy taxaw fii du may country lu baat ñu ne ma now ma ni leen thank you very much ñi ngi bég mm-hmm. ñoom ñoo bégul mm-hmm. Tunkara kañ lay ñëw ma invité ko kaldu bu ma mm-hmm. riij bëggëj bi def ko rëgëj rëgëj ba mu fuur kañ njabootam gi ñëwaatal ci muy def rëgëj kañ la ko bu am waas kañ la ko eh, eh, Tunkara di lekk ci Sénégal ak Akhenaton kaay foofu kañ lañuy ñëw ma invité leen sama kër kaldu mhm. nee naa bu ma riij bëggat bi di ko def rëgëj rëgëj ci leket bi mhm. duñu ko mës a def ay noonu Sénégal lañ mhm. bëgguñ ñu bu ñu sañoon tey jii interview bi lu may am ak yow sax Sénégal a ngi takk ñëpp nekk ci fitna te ñu ngi fii ñoom ñu ngi free bëgg sunu réew ma tàkk may wax sénégalais yi ñu bàyyi seen xel seen bopp xale yi doxee senegaal ba Amérique mhm. nu xool seen ndey yi mhm. ndax liggéey nañ seen kër baay yi mhm. ba tax ñu dox ku sa ndey liggéey visa ngay am dugg ci vol yi wàcc fii nañu wax ak seen yaay yi ak seen papa yi ñu taaj leen ñu laaj yaay yow ak sama papa lan ngeen def ba ñu torox duñu nitu dara tekkiwuñu dara. dama leen bëgg a dem fekk fee ñu taxaw nag may leen xaalis. ñoom tey ñi la ñi la doon sotti ndox. su ma leen fa fekkee may leen xaalis dina am doomu xaraam yu ko jël ndax dañu sonn dama leen di may xaalis na leen kaa leen ma sarax leen. <laughs> d'accord ndax da maa dóor ñu may ma xaalis. Mhm. kon dama leen di sant kaay leen ma ma may leen ci. d'accord barke alxuraanul karim su ma ñëwee yow naa la ci may sama doom ji. <laughs> <laughs> incha <laughs> su ma ñëwee sedd laa. incha allah sans limite yéen samay doom ngeen. waaw su ma ñëwee dinaa sedd. sedd waa sans limite d'accord. barki alxuraan samay doom ngeen. Mhm. boo xoolee Sénégal ñuy politique bari na. Mhm. mais xale yi jour journaliste yëpp. Mhm. man la bëgg maay seen yaay. lii la yàlla dogal. mënuma ci dara. ñu ñu ñu bañ a jël sa temps kon que da ngay dem ci. jërëjëf teewaayu son excellence monsieur président ma ki Sall. ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo wax soppe yi itam ni dara jotu la yaa ngi ci jàmm ak salaam ndax ñëpp bu ñu gisee vidéo yi jaaxle woon nañu démb. Mhm. wallaay wallaay dëgg la di leen wax rek ni euh, di leen joxaat sénégalais yépp sama love. Mhm. di leen wax ni dara daluma. Mhm. maa ngi sant yàlla bu baax. di yokk nag sama cofeel ci mhm. président Macky mhm. su fekkee ñoom Macky Sall ñoo tax ñu bëgg ma gaañ kon dinañ ma gaañ ci lii des ci Macky liñ fi desee mhm. parce que man duma daw nee naa leen dama ñeme ragaluma man ragaluma Sénégal moo gën a dangereux man maay dox maay nduggi maay dem fu ma neex ragaluma ragaluma ñoom war nañu xam ni kuréel ragalul ñi ñuy dàqee ñuy daw du man mm-hmm. sénégalaise la mm-hmm. pure et dire maa ngi juddoo Abbas Ndao le 18 avril 1969 mm-hmm. midi laa juddu Abbas Ndao midi li sénégalais wax yëpp dama ko dégg fan sama ginnaaw euh, faas nekk sama ndeyjoor sama càmmoñ Gueule Tapée nekk sama gauche palais de la république nekk sama kanam mhm. man maay sénégalaise bi pure man et dire mhm. ma daw ndax gisuma lu tax mooy daw mhm. duma ale sama life yëpp dama ko liggéey dimbali ko sama waajur wi man taxawaaluma man jaaruma ci àll dama gis sama waajur mu sonn ma jël sama life bi jox ko ko dimbali ko ba mu dugg suuf mu ñaanal ma ñaan goo xam ne moom laay tiitaroo mënuñ ci mën dara. d'accord di ñaanal nag Sénégal yal na fa yàlla yokk jàmm. amiin. Mhm. di ñaanal kilifa diine yeeg yu aada yi di leen wax ni sunu xel ak sunu cofee la ci ñoom. di mhm. ñu leen di ñaanal yàlla mu baleen fi. Mhm. di ñaan gàmmu Tiwaawoon bi nga xam ni sëriñ Babacar. laay bégee. démb dimbali na ma ci xeex bi. dimbali na ma ci xeex bi mhm. moom mhm. ñu ngi leen di ñaanal sëñ Mbay Mansour mhm. sëriñ Babacar ma ni leen sëriñ Babacar du wàcc xalifa gi ba àddina di dukki yal na leen yàlla defal jàmm Sénégal di leen wax maa ngi ci jàmm ci loo leen ne <laughs> parce que maa ngi ci jàmm ci loo leen ne Sénégal <laughs> loolu laay tàggoo. merci beaucoup honorable ñu ngi jërëjëf jërëjëf remercier di la jaajëfal bu baax ci disponibilité bi merci beaucoup. li lañ leen indiloon euh, tey seen émission ñu ànduñ ci ak honorable député Coura ki ndax démb la xew ñu bëggoon ci am itam lu ñu leer xool mbir yi rek naka la demee moo tax waa sans limite daal di koy jël tey donte nekkul Sénégal mu ngi bay États-Unis wante dégg la nga xam ne expliqué na ko ci digganteem ak xale yooyu doon ko sotti ndox wala problème bu ñu amoon lépp daal dinay joxe détails yi di leen jox dig daje ba beneen incha allah ci beneen personnalité ak beneen actualité jàngeen jëf restez connecté sur sans limite TV merci. à la prochaine mais remercier Thiom Laye mi nekkoon ci réalisation bi